léegi dañu gis keroog tamit wax nga ni yaa Gaston déggu ngeen ci ci ci ci beneen combat. yeneen yeneen combat. kon Bombardier moom la mu waxoon ni couronne bi moo ko teree nelaw loolu lu mu gëm la de. waaw man dama bëgg dama bëgg def yeneen combat quelques combats rek. après nag euh, bàyyi booy ak place bi. quelques combats ba jëli couronne bi wala maye chance lay nekk. lépp mën na ci nekk mën na ci nekk mën na man daal sama ambition jëli couronne bi la waaye nag si kàttanu yàlla xam nga Sénégal wax fi. Hmm. Euh, booy wax da nga naan lii laa bëgg a def na ànd ak dogalu yàlla. Mhm. yàlla mooy dogal nu mu ko defee ñun dañuy sabalu rek. man sama ambition li ma bëgg mooy. Mhm. nekkaat roi des arènes troisième fois. Mhm. dégg naa sax sama sama sama jarbaat géejawaay. kan ji lat nee na nee na nee na nee na damaa gourmand quoi pour lan may <laughs> may bëgg trois fois. te ma ah, jëlagul ah daa bëgg moom it waaw. ko pour troisième fois. waaw incha allah. sa combat ak ak Modou Lo ndax dañ koy pour l'instant daal gas ñu ngi wax si yeneen combat mais comme Eumeu Sène bi moo gën a sës. Mhm. waaw dama ko ni damay concentré si Eumeu Sène. Mhm. le 27 bu jàllee le 28 mën nañ signé beneen incha allah. di danañ dégg dara. incha allah mën na nekk. yaa ngi Modou Lo ndax dañ koy dox. mën na bokk si plan bi sax. comme moom dafa blessé ñu ngi koy ñaanal yàlla mu mu wér ak jàmm bu reprendre entraînement. rëg-rëg tamit pare woon nga fi pour may ko sens. man daal ma ëpp adversaire si làmb ji maa ëpp adversaire donc léegi nag euh, le 27 bu jàllee le 28 incha allah rabbi mën nañ dégg beneen. am na tamit beneen xale bu fi nekk Sa Thiès te yow dafa mel dafa am loo ko yéene ba léegi maanaam da nga ko yéene moom mu yéene la. kooku jógu moom fas na yéene fomp rax ngooñ waa kër gi. yaw fas nga yéene door yi nga bëgg yi gën a métti yi ngay door adversaire nga bu dee ñeneen sax damay wiiri wiiri naan la ay nanga man moom kooku man maa ko man maa ko bëgg kii rek Sa moom du ma fi nekk di wiiri wiiri naa la ay cest moom xam na xam na waaw Sa Thiès ba bu ma doon yor bant nii di di zibilé. waaw foog foo jaa mu dóor ko door yi métti. ndeysaan lu tax loolu. bu dee ñeneen ñi moom man naa fa nekk di la kéegee mais Sa Thiès. Mm-hmm. Eh, waaw booy boobu daf maa yëpp. lu tax loolu lu tax loolu daf mel ni ñaar ay ay ay ngeen nag. waaw ay waay lañ nii nii nii nii mais foog moom foog ma dóor ko pare nekk soog a nekkaat waayam de. da nga maanaam da nga bëgg a bëree moom. waaw. loolu moom loolu moom bëgg naa ko si sama si sama carrière. lan moo tax amoo esprit ñenn ñi ni ñu amee daan sa mag soxlawuma la. non non non làmb du loolu. nga jiitu ko ci làmb fuuf. waaw ni bëgg ngaa bëri ak moom. làmb da ngay bëreeg say say mag bëreeg say morom bëreeg say rak ñett yooyu fi nekk yàlla dimbale nag nga am karit bu gudd loolu def parce que man bi may ñëw di bëri ñoom Tyson ñoo ma magoon fuuf. Mm-hmm. waaw donc dañ ma mayoon chance bëreeg man. kon tey man su ma bëreeg samay samay samay samay mag bëreeg samay morom damay damay may chance samay rak. Mm-hmm. waaw ñu mën a yéeg ci kaw. <laughs> xam naa ni ak Sa Thiès moom buñ tax bu taxawaatee moom Lirou Diane li ko metti woon ci ci li ko metti ci yow yëpp. gën a joyaa rek barki dem maa ngi gis coach sam boobu seen coach sam di wax rek ndeysaan nee na nee na nee nañ man la ñuy xaar. kan la. mooy gaañ bi leen di entraîné rek. waa ju ñaaw jooju Lamine <laughs> Lamine Faye. waaw ah eh, la mais xam nga euh, communication dafa xaw a kii. Mm-hmm. des fois ni muy communiqué dafa yéeme man bi ma bi may bëreeg Balla dama seetaan benn euh, interview bu ko defal. Mm-hmm. Euh, prochaine fois buy communiquer bu mënam amee combat. Hmm. na jox valeur kii mbërëm di bëreel. Hmm. loolu c'est très important. loolu boo ko defee sa mbër yaa ko sonal. Hmm. dama gis benn interview ñu laaj ko. ne loo xam si euh, seen combat bi bombardier mu ne non kooku nag bu mag la bu jëm seeraas. yéex gaaw egg dee. yéex egg dee loolu c'est loolu c'est c'est grave si sa comme sa sa athlète booy préparé pour mu war a bëri. est-ce adversaire bi rek. no no non man kenn mënu ma déstabiliser mais maanaam loolu boo ko waxee sa combattant da nga koy yombalal combat. Hmm. da nga koy yombalal de trop. loolu boo ko defee rek yaa sonal sa athlète. Hmm. maanaam dama leen ne man bu jëloon tey jii ku gën a tuuti si làmb ji. dama ko naan hey am nga hmm. sa ma la prochaine fois nay communiquer bu baax. mais nee na Sa Thiès lay xaar. waaw na liggéey bu baax rek na yokk doole. non Sa Thiès que instant am na doole xanaa bu mu war a mën a jëflanteeg yow. baax na ba ma jàpp ko ba ma pare. Reug Reug. waaw yooyu yëpp daal man li ma la wax rek ñëpp samay adversaire lañu. su ma paree si combat bi nee naa la vingt 28 si guddi mën ngaa dégg dara incha allah